maire bu Sindia di euh, Thierno Diagne mi nga xam si nag procureur moo waxoon ñu daal di koy jàpp ni ki tey ji guddeem gu njëkk dina ko fanaani euh, kaso def nañ ko mandat dépôt blanchiment de capitaux wàllu léexoor ci koppar lu toll ci euh, juróom-benn fukk ak juróomi million ci xaalis CFA waaye itam euh, ay jafe-jafe ci wàllu parcelle bokk na ci li ñu ko daal di tuumaal xibaar la boo xam ni suñu ndaw la nekk ca mbuur di ñu ko toppal Ndeye Mati Dieng moo nu ko daal di baaxee dinañ ci dellu si ci ni mu gënee yaatu suñu yeneen jotaayu xibaar. activiste bi la di Bah Diakhaté ak Cheikh Tidiane Ndaw ñoom nag retour de parquet la ñu amee gisewuñu procureur ni ki tey jii kenn ci avocat yi leen di euh, layal di maître El Hadji Amadou euh, Sall jàpp ne euh, dinañ leen bàyyi bu ñu leen dégloo ba noppi mu ni itam Bah lépp li mu daal di wax andina na ca ay firnde mu ni amul loo xam si war nañ ko te ndax defut benn délit ñu teewlu ko gannaaw jokkoom ci téléphone bekk Mamadou Oumar Ba. damay dëggal ne Bah Diakhaté ak Abdoul Aziz Ndaw mais dañu teg tuuma premier ministre Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko tuuma bi ñu ko ko teg dañ ko ko teg ne moom dafa yore mandargay président de la république mu di mbir mu doy waar loolu lu ñuy war waxtaan la suñu àggee tribunal da ngam dinañu àgg tribunal ñuy wax ne it euh, dañoo ñëw euh, siiwal ay mbir yoo xam bi ay wax yoo xam ne bi laluwul ci dëgg loolu lañ leen toppee euh, buñ leen ko toppee it may wax ne en tout cas li nga xam ne bi moom mooy li concerné Bah Diakhaté lépp loo xam ne bi wax na ko moom euh, indi na firnde ne loolu mu wax ci dëgg la lalu may wax ne it euh, euh, topp ñu ko ne dafa saaga ndax saagawul benn yoon kenn masul wax ne ay injure la wala ay injure mooy saaga dañ ne rek dafa teg tuuma wax ju tegginawul ci Ousmane sonk waaye saaga moom kenn toppewu ko ko ñuy wax ne loolu buñ ko ci laajee lépp loo xam ne ne bi wax na ko dafa temu lalu ci dëgg indi na firnde bi bi ñu paree it téye nañ ko téye nëgandi ko garde à vue nañ ko téye fële ca police démb police jëbal ko procureur waaye procureur ba léegi waxagul dara deetuwu ko furiwu ko may wax ne nag loolu ci dinañ ci waxtaanaat euh, ñun avocat yi ndaxte dañu jàpp ne teguwul ci yoon nga jàpp nit Euh, def ko garde à su garde à bi jeexee soo ko yóbboo ci procureur ci saase procureur daf ko war a bàyyi mbaa mu topp ko waaye téye nit te dama koy def retour de parquet retour de parquet mooy dama koy jaay doole téye ko fii ak man may xalaat lan laa koy def gannaaw loole itam waa APR daal nañuy génne ab bataaxal dëggal ne ba jaxate ci ñoom la bokk te itam nag li nu ko jàpp ñu gis ni tegewul ci yoon xoqtal la goo xam si ne nan kilifa yi falu yees dañ ko bëgg daal di tàmbali loole nag lan ni du jàll tey sàkkuñu bàyyi ko ci ni mu gënee gaaw bataaxal lañu fésal topp ndigeek Boubacar Dieng. alliance pour la république di ñaawlu li ñuy teg loxo ki nga xam ne ak activiste la te ñu koy woowee ba ñoom nag dañoo jàpp ni liñ koy jiiñ yëpp amul dara loo xam ni dëgg la bu ñu sukkandikoo ci bataaxal bi nga xam ni nag waa APR daal nañ koy génni li ñuy toppee ba amul dara loo xam ni niru na ay saaga xotti worma wala sax fësal xibaar boo xam ni amut alliance pour la république seen bataaxal bi ñuy xam ne ni ñoom yàgg nañoo artu ci anam bi nga xam ni Pastef moom la yore réew mi ñu jàpp ni anam boobule dafay salfaañe jàmm ji nga xam ne am na ci biir askan wi wala sax déggoo bi nga xam ni nag waroon na see am ndaxte seen xeetuk politique ñu ngi ko teg ci fitna bañante wala sax dox ci xelu nit ñi dem itam boole ci ay saaga wala xotti worma institution réew mi ba tey seen communiqué waa APR di xam ni ci diiruk ñaari weer Pastef bi ñu yoree réew mi li nga xam ni moo di paix civile dafa menacé wu lépp lu aajow ak liberté ñu daal di koy agressé dictature bi tàmbali alliance pour la république wëyal seen communiqué bi di sàkku rek suñu bàyyi ki nga xam ni moo di Bah si lu amul ab àpp waaye itam di woo seeni militant rawatina ñi nga xam ni ñoo day responsable yu coalition Benno Bokk Yaakaar suñu booloo doon benn ngir tàmbali li nga xam ni nag moo di xeex bi ngir ñu bàyyi si nu mu gën a gaawee kii di Bah Diakhaté di ko jaajëfal bu baax a baax Boubacar Dieng ca mbir moomee la ñuy des ba tey ak yan ceey kàddu yu jiib jëm nag ci kilifa yi falu yees mouvement Kaolack ca kanam loole la ñu naqarlu ne itam ñu ngi sàkku ci ñoom ñu daal di lijjanti lii di am ci xarala yu yees yi Kaolack Fatou Mbow kuréel bi ëmb Kaolack ca kanam nat daal di mer ba futtu gannaaw ay kàddu yu ñu woowee lu ñaaw jëmale ko ci autorité yu yees yi njiital bi di Déthié ndaw natta di sàkku ci yoon mu daal di def liggéeyam nu mu waree ngir ñu gën a respecté suñuy institution mu nekk kàddu yu ñaaw yoo xam ne dafa amul teggin amul respect te ñu doon ay Sénégal te ma gis ne premier ministre Ousmane Sonko lan la wax ba mu indi coow li dafa fay jaru mais est-ce que loolu ñuy wax te bëgguma ci sa jaar dakaa daganal est-ce que dafa wax ne day am Sénégal mu am ay nit ñoo xam ne jóg nañ di koy attaqué attaqué ñaaw fépp ma jël ci exemple sama benn doomu bàyyi ku sant ndaw xam na ndaw ba pare yow ngay ñëw di attaqué nit ba pare soo demee di baal doo xam loo koy mesuré ci ban Sénégal lañ ne léegi loolu c'est trop moo tax nag état dafa war a jël ay mesures sévères. dérive yu ñu amal ci réseaux sociaux yi nag daal di jaaxal itamit bile kuréel la tax ba muy sàkku ci état mu daal di xoolaat jafe-jafe yi nga xamante ne mu ngi wéy di teree nelaw askan wi. lu ne la ñuy wax ci réseaux sociaux yi. mais loolu sa arrête dañ ko war a arrêté réew Sénégal am ñoo xam ne aussi tamit dañuy jóg di wax fausse information yoo xam ne dara amu ci ci mais loolu dañ ko war a arrêté lu jëm ci wàllum seeraayu njëgu dund gi nag kuréel bii di Kaolack ca kanam di ñaawlu doxalinu Sénégalais yi tax ba mu leen di woo ñu daal di ànd ak dal waaye it gunge autorité yu yees yi ngir ñu suqali réewum Sénégal la. mais état balaa moo wàññi dund mais da koy jàmbat. nit ki toogagul deux mois trois mois nga koy ŋañ. Fatou Mbow Kaolack rajo Futur Media. jaajëf faatu Mbow ñu woyal wax ci autorité yu yees yooyee conseil des ministres bi ñu amal niki tey jii bokk na ca lan ca mën a jànge Euh, mu di nag wàllu foncier ak xalaat bi nga xam si limaani jëwriñ yi di Ousmane Sonko am na ko ca ak nag ak saytuwaat gu mu ca bëgg président Bassirou Diomaye jaxaar Faye itam wàllu càmm gi wax na ci waaye itam gën a dooleel jigéen ñi Abdourahmane Diallo. ci communiqué conseil des ministre bi ki nga xam ni moom mooy premier ministre bi ñaax na ay ministre am nañu taxaw taxawaay bi nga xam ni dinañu fexe ba li nga xam ni dafa jëm ci wàllum dundu nguur gi ñu daal di koy wàññi ba noppi ñu fexe ba teg loxo lépp li nga xam ni suuf la wala tabax yi nga xam ni dañ ko jox ay nit nguur gi moom ko ñu fexe ba nangu ko Ousmane Sonko di xamle ni tamit nguur gi dina am taxawaay ba nga xam ni yenn ci ay contrat yu jëm ci wàllum or pétrole wala boog ci géej gi ñu xoolaat ko ci conseil des ministres boobu tamit jot naa waxtaanee ci li nga xam ni jot na ko waxtaan ak yenn ci ay service yi nga xam ni dafa jëm ci ni nga xam ni noonu la ñuy wàññee dund bi ak wàllum internet bi waaye ba léegi waxaguñu app bi njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye moom tamit daal na xamle li nga xam ne moom moo nekk mbébétam rawatina ci lu jëm ci wàllum càmm gi danañu mën a xool ba xam Sénégal lan mooy jumtuwaay yi fii ci wàllum càmm gi waaye tamit soxla bi nga xam ni war nañ ko mën a am ba ñu mën a jéggaani li ni mel te tamit ñaax na ministre des fort armées ak ministère bu yor wàllum kaarange biir réew mi ñu fexe ba def seen kéemtalaayu kàttan ba lu jëm ci wàllum sàccum jur gi daal di jeex ci réew mi mu yokk tamit xamle ni lu jëm ci wàllum càmm gi suuf am na ci solo li ni mel sax a tax ñu war a amaat yeneen taxawaay ba wàññi feu de yi nga xam ne dafay am ci réew mi Bassirou Diomaye Faye daal nekk taxawaayam ci lu jëm ci wàllum soxna yi ndax jàpp nañ ni ñu am solo lañu ci réew mi li mel sax a tax mu jàpp ni nguur gi dina préparer ab projet de loi bi nga xam ni dafa jëm ci wàllum nan la ñu war a mën a def ba dimbale soxna yi ba ñu mënal seeni bopp loolu nag mu fas yéene ci ànd ak kuréel yi nga xam ni ñoom ñoo ëmb soxna yi fii ci Sénégal. jaajëf Abdourahmane jàlloo ngeen di wéy di déglu xibaar yi guddi gi ci rajo Futurs Médias juróom-ñeenti waxtu moo jot ba tegal fukki simili ak moto jakarta yi ak yeneen xeeti deux roues yi daanaka jafe-jafe yu métti métti lañu andi ci euh, transport bi rawatina fii nii ci euh, biir euh, ndakaaru danger sax lañ ca daal di gis ki jàpp lu ni mel moo di secretaire général bu mouvement dooleel transport Malick Diop lay wuyoo lii aslëf la ci waxtaan wu yaatu mu seq ak Ibrahima Diame ndax mooy nekk gan gi. tey gis nañ ne agression yu bari. yoo xam ne moto deux roues yi ñoo koy def. te kenn identifié wu leen. buñ la rayee da ngay perte. bu ñu la agressé da ngay ñàkk sa alal doo xam foo koy jooyee ndax dañu bari. beneen problème phénomène bi si am mooy ay moto yu bari yoo xam ne dañ jóge si sous région bi. Mhm. ñoo xam ne duñu sax ay nationalité sénégalaise. jóge si yeneen réew ñëw ba fii Sénégal si suñu capitale réew di fi def transport de personne avec des motos deux roues non identifiées. loolu defe naa ne autorités yi bu fekkee xam nañ lépp luy sécurité publique war nañ si jël matuwaay yi ñu war a jël. lu mu gën a gaawee. Mhm. ndax réew mi ñu ngi bay bayal loo xam ne fii ak ay at yu néew du la jox rendez bu ay cinq ans d'ici deux ans phénomène moto de euh, yi bu ñu ko arrêté wul insécurité publique lay indi mm-hmm. muy problème boo xam ni tey boo defoon micro trottoir ñu si bari agressé nañ leen si taw tali bi dañ ciy da ngeen ciy teg seen bopp dañ ciy teg suñu bët am na yàggul dara am na taximaan bu ñu rey fii si Bourguiba ki ko def moto moto deux roues la yor am na yeneen cas d' agression ay taximaan yoo xam ne dañ leen agressé ñi dañuy tëj seeni parabrise ñi dañuy ñëw nekk deux personnes yor ngànnaay ñëw fekk la nga yor client ñu ñëw daar gaare sa bunt force sa porte oto bi pour jéem a agressé client bi nga yor yaa ngi doon wax ne am na benn boo xamante ne am na depuis jamonoy Ablaye Wade si le ministre Mor Ngom jël benn arrêté 89 03 organiser velo taxi fii si Sénégal ci la wax ni Dakar mënul am velo taxi buy def transport de personnes si capitalu Dakar dinañ ko mën a dégg ci ni mu gën a yaatoo ci euh, njeextalul xibaar yi Louga itam accident am na fa ni ki euh, tey ji ay moto ñoo ko daal di euh, sooke moto Jakarta ba ñetti doomu aadama daal ci ñàkk seen bakkan diggante démb ak tey ANASER nag ànd ci ak police di ci amal tukkim nemmeekuy wër réew mi ngir nag gën a amal ay sensibilisation ci wàll ni mel na fi Satou Ndiaye. lieutenant de police Ibrahima Diop mooy commandant de corps urbain bu commissariat nga xam ni moom doon jagleel contrôle ak ñaar chauffeur si di loo xam ni agence nationale de sécurité routière di ANASER moo ko initié ci noonu mu bëri lool ay woto yoo xam ni jot na leen contrôlé. jot nañoo contrôlé cent vingt sept véhicules am nañ ci cent cinq véhicules yoo xamante ne si pour. Euh, diverses infractions mais infractions yoo xamante ni bari na lépp ci biir ak yoo xamante ni si 40 yoo xamante ni dafay nécessité immobilisation maanaam dañu leen di yóbbu comme CDA. ci noonu chef service régional des transports terrestres di Demba Aw daal dinay xamle nii di def seen kéemtalaay kàttan ba yile jéeye mën a wàññeeku. lii ça vient à son heure. maanaam lu jot la ñu def ko. di ko nag bëgg di ko bamtu. lu bari di ko amal chaque weer di def des opérations contrôle mixte pour au moins atténuer les infractions parce que suñu sanctionné wul infractions yi du wàññeeku. ANASER ñëwoon fii ci diwaanu Louga ngir di fi def ay contrôle ñoom nag ci noonu lañu yem ci ñetti l'accident yëpp ñu di ko naqarlu kenn ci ñoom di wuyu ci turu Mapenda Loum di major ci gendarmerie nationale ñu daal di koy affecté ci ANASER mi ngi sàkku ngir chauffeur si xoolaat anam yi ñuy dawalee ci kaw tali bi. bon suñuy attente mooy euh, comme li ñu wax rek accident yi wàññal donc yaakaar naa ne bu ñu góorgóorloo tout le temps nit ñi ñuy wax ak ñoom ñu dégg ñu comprendre suñuy objectif booy dawal nga jël comportement comportements yi nga xam ne moom nga war a am en tant que chauffeur en tant que professionnel. responsable yu ANASER daal di dajale chauffeur si ngir waxtaanee liy faral di waral yile accident ci noonu dinañu dajale dawalkatu watiir yi ak dawalkatu moto jakarta yi ngir sensibiliser leen ñoom itam buñ ca noppee dinañu wéyal seen tournée nationale bi Kébé maire Nafissatou Ndiaye Louga rajo Futurs Médias. ak RFM kumpa jeex na. f kuréel la gu taxaw goo xam ni li leen tax a jug moo di xeex njëgul connexion bi ni mu jégee dayo ci réewum Sénégal tax naka ñuy daal di euh, sàkku ci tarif yi téeméer boo jël ñu daal di euh, wàññi genn wàll ga nee na itam lii nguur gi fi nekk ci boppam ñoo ci war a daal di euh, wax janlo ak taskatu xibaar lañ ci doon amal ni ki tey ji ci teewaayu Idrissa El Walid Sow ak amadu Sabax Ba. nee na ñu toll nañ ci ay téeméeri doomi aadama yoo xam ne ne ñooy ñaawlu cherté connexion bi fii ci Sénégal dajaloo ci mouvement bi ñu naan f CSC front contre la cherté du coût de la connexion ñoom nag joxoñ nañ baaraamu tuuma ñi nga xam ne nañooy opérateur téléphone yi nekk fii ci Sénégal Cheikh Tidiane fay moo yor seenu kàddu. réew mi toll na foo xamante ni nit ñi ak tënatuñu lu ñu yor yamale ko ci connexion. bu weesoo njëg yi dafa am ay jafe-jafe yoo xamante ni dañ koo seetlu. ci couverture. réseau yi nga xamante ni opérateurs yi ñu ngi koy am tey am na ci réew mi foo xamante ni boo fa demee fu ci mel ni ñun département yi ñu jógee fu ci mel ni Mérina Dakhar wala nga génn Mérina Dakhar jëm dans le cadre des nga dem ba Fuuta yu ci bari boo fa àggee dootoo am réseau alors que yaa ngi desee li nga jëm ci internet lii la ñu ni mënutu la continuer. ak ni situation bi mel F4C li ñu bëgg mooy ñu wàññi tarifu connexion yi waaye ñu defaraat lii di secteur bi. mu nekk droit boo xamante ni war nga ko mën a faire valoir ba corruption boobu li jeex. li ñuy exiger encore. mooy que opérateurs yu ni mel. liggéey ci couverture réseau bi nga xamante ni tey bokk na. mën naa ni moo nekk. fànn bi nga xamante ni moo gën a sonn parce que mën nañu muñ am connexion jënd ko mu cher jëfandikoo ko ba mu jeex waaye jënd connexion mu cher ba pare mënoo koo jëfandikoo tamit moo gën a metti encore dañu jàpp ni njëgu internet yi mën nañu ko wàññi maanaam ñu xaaj njëg yi conférence de presse bii di act bu njëkk boo xam ne teg nañ ko front contre la cherté du coût de la connexion nee nañu dinañ jox ab autorité yi balaa ñoo wéyal li des ci seen plan d'action bi jaajëf Amadou Sabax Ba waa Gandigal ga nekkee ca mbuur ñoom li leen yitteel moo di euh, facture ndox yu cher yi ba tax nag ñu ni dootuñu ko fay ñeenti weer a ngi ni amuñu am ndox normal te itam nag ndox ma fay wàcc daanaka sellul ak waa teg lañ ca joxoñ baaraamu tuuma bay sàkku mu aba leen nday Mati Dieng. ñeenti weer ngi nii waa Gandigal Sud am ñu ndox. askan wi nag mer ba futu daal di wàcc ci mbedd mi ne Aquatech la ñu bëgg mu seppi loxoom ba mu set ci seen yorinu ndox mi le Nafisatou Badji moo wax ci seen kàddu amatuñu jàmm nelawatuñu guddi ba yandu ndax yaa ngi dékk sa pandis di xaar kañ la robinet di toq toq laa wax de ngay ñëw di root ba 3 heures du matin ba 4 heures du matin nga doog a am benn barigo léegi barigo boobu jeexee ci obligé nga jënd da ut saret 1000 francs chargement bu ne 1000 francs donc tu peux acheter 2000 francs par jour askan wi ne bu ñu bëggee ndox mu set dañuy jënd benn butéelu fukki litre bu ne ñu ngi leen koy jaayee fukki dërëm ñu fas yéenee banque seeni loxo nag ñu ne ginnaaw yëglu bi la ñu def dootuñu fayati facture facture yi cher na trop dañuy ñëw relever fay loola li nga xamante ne non seulement consommé woo ko mais tu n'as même pas vu la chaque mois ñu ñëw chaque waaw li nga consommé wul noo koy fay ñun naanatuñu sangootuñu ak waa Carlos doomi Suisse la bu ñëw dëkk fii ci Gandigal ne li askan wi wax lépp dëgg la moom ak Nafissatou Badjine dañuy woo nguur gi ci mu wutal leen saafara jeune docker ya nekkee ca port autonome bu Dakar ñoom nag ñoo daal di euh, bëgg ñu andi ay euh, leeral ci euh, juróom ci seen ay naataango yoo xam si dañ daal di euh, dàq ci lu jàpp ni tegewul euh, ci euh, yoon ci sàllo seen kàddu di Daouda gëy jiite itam mouvement bi ñoo moo ci jokkoo ak Abdourahmane jàlloo ci note d'information bi dañ ñoo accuser ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy waa mouvement bi di manifester au moins di revendiquer suñuy droit ñu ñu ñuy traiter comme des agresseurs et des malfaiteurs léegi nag ñun dañuy demander à l'opinion publique ko est-ce que patron boo xamante ne il est digne son nom est-ce que dina recruter des malfaiteurs et des agresseurs dans son entreprise je pense très bien que loolu noonu du loo xamante ne xel mën na kaa dégg di ko comprendre alors ñun nag li ñu doon revendiquer mooy ko ne ne dañ leen licence menacé woon loolu la ñu demoon pour waxtaane ak ñoom à nos plus grandes surprises ñoom ñoo ñuy menacé di ñu xamal ne lu ngeen gis xam leen ne ñun la loolu noonu doon loo xamante ne ñoo ngi ko doon si biir les dockers aussi dockers yi nga xamante ne ñooy occasionnels yi ak professionnels yi am na si ñoo xamante ne joxatuñu leen service kenn xamul fu ñu ko teg aussi ñoo ngi gis ko ne maanaam li nga xamante ne moom la ñuy dëgg ci suñu bulletin de paiement dafa bëri trop trop trop trop te loolu ñuy dëgg si ñun maanaam fan la jëm ak lan moo waral dagg jooju noonu boo suñu bulletin de paiement presque boo xoolee ça équivaut à quarante pour cent donc ça reste soixante pour cent yoo xamante ne ñun xamuñu fan lay dugg li nga mooy heure yi nga xamante moom la ñuy liggéey dafa bëri on travaille douze heures de temps et alors heure supplémentaire yi nga xamante moom la liggéey dañ ñu ko fay est-ce que là c'est normal loolu du yoon am nañu problème tamit pour accès au niveau du port ndax amuñu ay badge au niveau du port tey jii bu ñu joxee service maanaam da def lu tout pour mun a jàll si pour a dugg si biir port bi parce que gendarme yi yi nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee dañ ñu ko jaayoon en deux mille dix neuf c' était en trente cinq mille francs le prix est ce que là loolu noonu c' normal yow comment ça yow nga am nga am ba pare di leen liggéeyloo ba pare di leen jëndloo ay tonnes loolu noonu c' est pas normal. liggéeykat yi feera ya nekkee ca diggante département bu Dagana ak bu Podor itam ay ñaxtu la ñu xëyee ndax ne ñeent jàpp juróom-ñaari weer a ngi nii yoo xam ni kenn fayu leen loolu nag tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu gestu leen Mamadou Diagne. ñu sol seen tenue liggéeyukaay yoo xam ne couleur rouge gris ak noir la teg seen bopp yi ay kat yoo xam ne logo Feera ma nga sa daangi nga koy gis liggéeykatu Feera yi nekk si département bu Dagana ak Podor daal nañuy ñaxtu si naaj bu tàng jër di sàkku suñu fay leen seen retard salaire yi ne li ñu sukkandikoo si Amadou Makhtar Mbaye mi nga xam ne mooy superviseur Feera Dagana mi nga xam ne ne ñoom ñii lee toog nañu lu toll si ñeent jàpp juróom-ñaari weer yoo xam ne kenn fayu leen la ci jamono yi may wax yow nii am na communes yoo xam ne ñoo ngi si 7 mois te salaire jotuñu ko am na ñoo xam ne ñoo mooy 6 mois ak ñoo xam ne ñoo ngi mois mu nekk nag jafe-jafe yoo leen di ñaan ngeen jox nu li nga xam ne moom nanu moom ndax loolu nun ñoo ko jaaxle loolu tax ba ki nga xam ne mooy seen vice président di Abdoulaye Fall di sàkku ndimbal si njiitum réew mi ngir mu indi ay saafara monsieur le président yaa taxawoon si sa sa campagne. nga taxaw nga ni sa priorité mooy jeunesse si xëy ndaw ñi. mais ba léegi ñun ñoo ñu percevoir suñu salaire. ñun mësuñu am bànneexu salaire. dañ koy dégg rek suñu gisee bu ñenn ñi di tàllal seen lox di dem di jëli ji seen salaire. ñun lu ñu métti te nit ku nekk soo sañoon même bu dee fukki dërëm nga am bu weer dee nga tàllal sa lox ñu jox la sa fukki dërëm ndax fii am na ñi fi nekk ñi nga lañu xam ne ne nar ñu banque seen i yoxo ndax mbir mu lu mu laaj ba ñu fay leen ñun loolee tax sax ba ñuy sàkku ndimbal si kii nga xam ne mooy seen directrice bi ngir mu lal si pexe ba ñu fay leen seen payoor gi ne lu ko mooy nag ñun ñi dee daaxul yi yëngu-yëngal si ay bis yi ñu jëm mën Modou Diagne ñi fii si Richard Toll di rajo Futur Média jaajëf Mamadou Diagne daaneele kon ak bataaxal bi tukkee ci conseil ci ministre communication télécommunication ak numérique mi daal di xibaar ne da ndaje mi waroon a amal kon ak waa kap coordination des associations de presse de ci ajuma bi mujj na ko dàq ba jëmmi jamono loole nag waa CAP ñoo ko daal di sàkku ngir bëgg daal di matale euh, rapport yu assise nationale des médias yi laata ñuy daje ak moom.